Réumi 24 TV. bismillah dañ leen ak jàmm ci xibaar lundi 13 novembre mu mel ne jamono yi waa opposition bi ñu ngi dund ay jafe-jafe yu mag ginnaaw ba nga xamee ne rek xàjjalikoo nañ mu mel ne rek Ousmane Sonko daal dinay am dëgg ci ñoom ginnaaw ba mu leen di rek ngir ñu booloo bañ bàyyante waaye gis nañu ne fii mu toll nii rek Serigne Mboup niki démb ginnaaw ba nga xamee ne rek demoon na ca Pikine ca marché poisson boobee di ñaax commerçant ya ngir wax ak ñoom rek naka doon rek ca lañ jëm ca salle privée ne fa lañ doon waxtaane waaye lii di len xamal la yeen kat li ngeen def du yoon ben yoon ndax kat da ngeen maa waroon iya yëgal rek li ngeen doon def fi ci lako serigne xamal xamale li lii salle privé bi la jëru ñuy laaj ben autorisation lolé sax wara rek ñu dal di agalé rek seen waxtaan waye nak ay jàppante jotoon na fa am kon Ousmane Sonko mi ngi am dëgg seen kaw ginnaaw ba nga xamé ne ki di El Hadji eh, Malick Gakou ak Khalifa Sall eh, Bougane Gueye eh, dani ak Serigne bu mi fepp fu ñu taxaw rek dal problème yi maga a mag lañ fay am lolé rek ko tàqali googu Ousmane Sonko waxoon ne bu ko defee rek faiblesse la ci ñom kon dal dinañ am kon Ousmane Sonko dëggoo daal dinañ wax dëgg seen kaw ndax kat ñoom fi toll ni daal seen activité politique mënuñu koo dox benn yoon te booba jamono te Ousmane Sonko moom ma ngi hôpital principal am ab grève de la faim boo xamante ne jamono yi moom moo ko fa bàyyi muy sàkk rek ñu daal di koy retourné waat prison bu si bixutaan ba waaye nag fi toll nii askan bi yëpp daal ñi ngi sàkku rek ñu libéré ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko